ak yonentam wa sadaqa allahu wa rasulu yàlla ak yonentam day wax nañu dëgg wa ma zaadahum illa imaanan wa taslima dolliwu leen lu dul gëm yàlla ak sukkandiku ci yàlla wa qaala taala allazina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jama'u lakum mi ngi waxit ña nga xam ne nit ñi dañ leen a wax ne ah mbooloo nit ñi day dajaloo nañu ñeel leen faxshawhum na ngeen leen ragal fa zaadahum imaana loolu dolli leen ngëm wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ñun yàlla doy nañu ca doy na ku muy wakkir ku ci ku ñuy wàkkirloo fanqalaboo bi ni'matin min allahi wa fadl noonu la ñu dëppee ci xéewal gu bawoo ci yàlla ak i ngeneelam lam yamsashum suu laalu leen benn lor wattaba'u ridwan allah noonu it lañ toppee ngërëmal yàlla wallahu zu fadlin azim te yàlla boromi ngëneel yu màgg la wa qaala taala sun borom it noonu la waxee ni wa tawakkal ala alxayi lazi la yamuut na nga sukkandiku ci yàlla mi nga xam ne mooy dund du dee ba faw wa wa wa qaala taala ba tey wa ala allahi falyatawakkali almuminuun ci yàlla day ngalawaay na ca sukkandiku ñi nga xam ne mooy ñi gëm noonu la waxee ba tey fa ida azamta fa tawakkal ala allah heure boo demee ba dogu na nga wékku ci yàlla wal ayat fi l amri bi tawakkul kasira maw maaluuma aaya yay diglee ñu sukkandiku ci yàlla bari na xam nañu leen bokk na ci rek sunu borom mu ne wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu képp koo xam ne dafa sukkandiku ci yàlla yàlla dana ko doy ay kaafihi mooy dana ko doy wax na it ne innama almuminuuna allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum jullit ñi dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne suñu tuddee yàlla dana nekk di yëngu la nga xam ne mooy seen xol ya wa ida tuliyat alayhim ayatuhu bu ñuy jàng ci ñoom aayay borom bi it zaadatuhum imaana loolu dooli leen gëm wa ala rabbihim yatawakkaluun te ci yàlla rek la ñuy wékku wal ayat fi fadli tawakkul kasira maarufa aaya yey wane tawakkul bari na ca xam nañ ko mbokk lim ñu jote jàngal fii ci ay aayaat lan la ci jublu mooy jullit nga xam ne kaw suuf dafa am benn kàttan gu la yàlla may kàttan googu nag daa am fu mu yem bari na gàllankoor yu lay dal ci àdduna sa kàttan ci say pexe mënu la fa yeggale léegi nag ñu bari ñuy bokkaale foofu la ñuy ute ndimbal amma yow jullit sa ndimbal ci la ngay yóotu ca jotoo ca la nga bëgg a teggi te mënoo koo teggi ci yàlla rek lay doon looloo tax mu ngi ñuy jëkk a nettali yonent bi ak i saxaabaam biñ nekkee biir madina yéeféer yi jóge leen ci ndeyjoor ak càmmoñ moom la borom bi subhanahu wa taala di wax jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum ñu ndar képp leen pendant un mois yonent bi alayhi salaam da ngay gis ne saxaaba yu mu àndaloon luñ doon wax lii la ñu yàlla ak yonentam digoon ndax sunu borom moo ne woon danaa leen nattu ci xiif danaa leen nattu ci tiit ndax da ngeen yaakaar da ngeen tabbi àjjana ci li daloon ñu njëkk ñu dalu leen looloo tax préparation boobu leen yàlla defoon ci téereem bu tedde bi wan leen gaa yu njëkk yee fañ jaaroon biñ gisee kuréel yi ñëw dañ ne lii la ñu yàlla ak yonent bi digoon doonte ne naafiq yi ñoom soo delloo ci suratul ahzab dañ naan maa waadana allahu wa rasuluhu illa ghurura yàlla ak yonentam diglu ñu lu dul ay wor yeneen bi waxoon dañ ubbi ruum dañ ubbi faris tey ñu ngi nii mënuñu sax ah dem suñu kër yi waaye la yàlla ak yonentam wax rek ñooy dégg loolu it la jullit war a gëm sadaqallahu wa rasul lu mbir yi jafe-jafe lu mu tiim tiim sa xel xamal ne la yàlla ak yonent bi wax rek ñooy dégg mi ngi noonu ñaareelu aaye bi da ngay gis ne mi ngi amoon ci xare Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag yéeféer yi yàlla dogal saxaaba yi daw doonte ne ñoo njëkkoon a gañe sun borom yàlla ci kattanam dàq def na yéefér yi dem nañu nibbi ba mu yàgg sunu yonent alayhi salaatu wasalaam daa di jox saxaaba yi ordre ne nañu leen dabi ca suba ga saxaaba yi jógaat yéefér yi bañ demee ba ci yoon bi ñu ne ñun daal ñoo ñàkk fayda ñii xeex nañu ñoom gañe leen pourquoi ñu bàyyi leen ñu nebbi madina nañ dem fekke leen foofu jekkali leen loolu am koo xam ne ni jóge na ci ñoom ñëw dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaje na ko ah muhammad abu sufyan day dajale na mbooloo mu rëy mi ngi nar a jëm ci yow saxaaba yi bi ñu déggee li li ñu wax ñu ne xasbuna allahu wa ni'mal wakil yàlla doy nañu doy na ku ñuy dimbali ko loolu it da ngay gis sar ba gudd na comme ni ñu ko jàngee ci saar yi passé ci Ali Imran da ngay gis waa Màkka dañoo mujj daw sunu borom nag ne xoolal ñii day biñ leen waxee nit ñi dajaloo nañu ñeel leen na ngeen leen ragal ñu ne déedéet duñ leen ragal abadan yàlla doy nañu te doy na ko ñu sukkandikoo noonu lañ delloo ci xéewalu yàlla benn lor daru leen ba pare ah topp nañu la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla loolu it luñ ciy déggee mooy julit heure boo sukkandikoo ci yàlla xamal ne léegi yaa ngi ci ngërëmam yàlla musul na la falilahi alhamdu dee nga ci loolu dee nga ci ngërëmal yàlla moo tax sunu borom ne da ngay gis fan xalabo bi ni amati min allah ba pare it daa di ne da ngay gis ne xéewal moo leen fekk ci loolu mooy ridwanin min allah wallahu zul fadlil azim kaddu googu di xasbunallah wa nimal wakil heure boo nekkee ci jafe-jafe rawatina ci looy ragal rawatina ku lay menacé nga la waa julit waxal loolu xasbunallah wa nimal wakil daan jàng ci kanam ne ibrahima moom la mujj a wax biñ koy sànni ci sawara wa sunu yaay aïcha sunu yaay Zeynab bint Jaas laaj na ko waaw bi la yonent bi fàttee ci àll bi lan nga wax mu ne dama ne xasbi allahu wa ni'mal wakil yàlla doy na ma doy na ko may wakkilloo mu ne ko laqad qulti qawlal mu'minin wax nga waxi jullit ñi gëm yàlla loolu tax yàlla xeccili ko yàlla yimul ci xeccili ko yàlla indi na ci kawam fitna boo xam ne ba ko yàlla teggee alquran la ci yàlla wàcce ñu koy jàng ba ila yawmi din donte ne Aysa mën naa jàppoon ne yonent bi fàtte na ko àdduna tukki na waaye gis nga xéewal gi nga xam ne jural na ko ko kon julit nga la waay kàddu googu de ka gànnaayoo foo mën a toll mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakil beneen bi sunu borom mu ne soo demee bay wékku na nga wékku ci yàlla mi nga xam ne moom du dee wékkul ci yàlla mi dul dee loolu dañ ci dégg ñaari mbir mbokk sunu boroom mooy aji dund ji dul dee waaye nag daa wéet ci loolu keneen ku dul yàlla da ngay dee ana sunu yonent muhammad alayhi salaam mooy dee na ana ibrahim dee na ana muusa dee na lan laa ci jublu mooy mbokk faatu na te dee googu it bu ñu ko bañ a wax dee mooy dee rek mi ngi noonu su ko defee kon képp keneen koo wékku ca du yàlla ana mu dee na loolu moo tax ba li xew suñu rajo yeeg télévision yi yàlla na la sëñ diw jàppale yàlla na la sëñ diw fay kee buy wàdd naan ci barki sëñ diw kee buy wàdd naan maa ngi sukkandiku waaw kooku anamu kooku dee na nga la way kon yemal ci yàlla mi nga xam ne du dee ca du nelaw suñu borom du dee du nelaw du sonn sëñ diw bi nga yaakaar day nelaw mi ngi noonu sëñ diw bi nga yaakaar day dee même buy dund bi day nelaw gis ngeen maa ngi leen ma sa nettali benn tafsir suñ benn doom bu ne Italie nee na dafa ko mu àndal di tukki ci tukki bi mu ne ko ndax xool nga essence bi mu ne ko ah sëñ diw amul morom ci sëñu Sénégal si nañ dem rek ñu deme dem ba ci dëgg àll ba oto bi ne pëng essence oto bi taxaw mu ne ko waaw sëñ bi ni ñuy def def nag la sëñ diw bu mujj waa ji daal di koy won montre am na ko non waaw xam naa ne comme sëñ diw nga yaakaar garawul léegi Sénégal ñu ngi ci 3 heures du matin nañu xaar tuuti bu yeewoo rek oto bi dina départ mu ne ko waaye booy bàyyi li ngay wax waaye gis ngeen ala kulli xaal mbokk loolu sa xel rek la waaye gis nga kenn mënulu la dara ku dul yàlla kon tawakkal alal xay yàlla moom nga xam ne du dee ba faw borom boobu it subhanahu wa taala ne ci yàlla rek la jullit ñiy sukkandiku wa ala allahi falyatawakkalil muminuun ngalla waaye ci yàlla na ci sukkandiku jullit ñi looloo tax képp koo dégg mu naan diw mi ma yaakaar ca du yàlla rek ngëmam des na waaye jullit bu am tawxiid bu leer day gëm ne laa xawla wala quwwata illa billah kenn amul pexe kattan ku dul yàlla subhanahu wa taala noonu it la yàlla waxee ki gën ci jullit ñi sunu yonente alayhi salaam na ko fa iza azamta fa tawakkal ala allah soo demee ba dogg nag wékkul ci yàlla te loolu mooy mandarga jullit soo demee ba dogg masalan yaa ngi jihaad loo man ci kattan génne ko loo man ci stratégie def ko soo paree da nga wékku ci yàlla yeneen tibaari sam na la daan def su ma saan génne jullit ñi ci jihaad dañuy indi seen kattan yépp su ñëwee tëral seen plan de guerre mu doog nag yëkkati ay loxoom di ñaan yàlla commerçant nga ubbi nga sa magasin chargé nga léegi nag tawakkal ala allah wékkul ci yàlla subhanahu wa taala yàlla mooy jaay feebar nga xoolal la dagana fajoo nga fajoo ko gannaaw ba tawakkal ala allah yàlla muy wéral ala kulli xaal fa iza azamta soo demee ba dogu fa tawakkal ala allah léegi da nga wékku ci yàlla borom boobu it ne ku wékku ci yàlla yàlla day ko ku wékku ci yàlla yàlla day ko wa man yatawakkal ala allah fa huwa xasbu heure boo xamee ne jullit bàyyee na boppam boroomam te muy dëgg yàlla dana ko may ndal xelu lu ko mën a dalit xelam day dal mi ngi noonu xelam day dal yàlla moo koy doyloo ca itamit mu gaaw ak mu yeex yàlla subhanahu wa taala dana la mas a may lu la bégal dalal sa xel aaya bi ci mujj mooy sunu borom ne jullit ñi dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne bu ñu leen tuddalee yàlla seen xol yi day yëngu te loolu leen mbokk sahabatul kiram noonu lañ meloon mais ñun ndeysaan influence daf ñu jógee multiforme rajo yeeg télévision yeeg film yeeg xabaar yu dul jeex dem na ba alxuraan amatul ci jullit ñi jeexital mi ngi noonu ca sunu borom mu ne jullit ñi dëgg-dëgg bu ñu leen deen jàngal aaye borom bi seen xol yi day raf di yëngu mi ngi noonu bu ñu jàng aaye yi loolu dolli leen ngëm waaye lu ñu wékku ku dul ci seen borom waa gaa yi jullit di wékku lu dul ci boromam kon ki takk ndomba fii xanaa ndomba bi ci borom bi la bokk ki takk ay béjjën ak cuur ay biteel xanaa loolu moom loolu yàlla la parce que suñu borom nee na jullit ñi ci yàlla rek la ñuy wékku su ko defee kon nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi def yooyu sa wékku ci yàlla des na mbokk jullit da ngay ñaan yàlla ci lang ba nga man njaagolam saraxole la wékku ci yàlla ñaan yàlla subhanahu wa taala jàppale la wa ala allah mi ngi noonu fal yatawakkalil muminuun looloo tax sunu borom mu ne wa ala rabbihim yatawakkaluun borom boobu subhanahu wa taala mu ne loolu mooy mandarga lii it moo tax ba mu ne aaya yi rot ci nga ne lu tawakkul bari na muy wane ne kon ab jullit heure boo xamee ne yaa ngi jóg lan ngay wax tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wékk naa samay mbir yàlla pexe kàttan kenn am ko ko dul yàlla loolu mbokk mooy aaya yi yàlla wax ci tawakkul donte ne bunt bi nga waxoon al yaqin wa tawakkul waaye tawakkul ci yaqin lay cosaanoo ki il faut nga am yaqin ci gëm yàlla ne yàlla rek a man yàlla rek a sañ ca ngay doog a mën a wékku ci moom amaa nag bu la yàlla doyul fokk ngay ah sukkandiku ci leneen lu dul yàlla loolu tax Muusa alayhi salaam keroog bi Firawna di ko dàq ba ñu sës ci géej gi waa bani Israël dañ ne saye inna la mudrakuun tey rek ñuy dàpp rek ñu ñun ñëpp Muusa ne leen kalla inna ma'iya rabbi déedéet sama borom mi ngi ànd ak man ndax yaqiin bi mu amoon mooy xam ne ne yàlla du ko seetaan mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهير والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله
xadis bi ci jëkk ñi ngi koy nettali ibnu abbas mu koy nettali mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya al umam yowma alqiyaama yàlla dana ma gaaralal xeet yi nga xam ne ñoo ma jiitu woon fa raaytu nabiya wa ma'ahu ruhayt ma gis benn yonent ma nga ànd ak mbooloo su ndaw raxta arab yi ñu ngi ko doon wax diggante ñett ba fukk ma gis ko ma ànd ak mbooloo su ndaw wa nabiyya wa ma'ahu rajula rajulu wa rajulaan gis naa it benn góor benn yonent ñëw benn góor la àndal keneen ñëw ñaari góor la àndal wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad gannaaw ma gis yonent yu ñëw ne yàlla maa ngi nii kenn gëwuma iz rufi aliya iz rufi ali sawaadun azim gannaaw ba ñu feeñalal ma mbooloo bu rëy a rëy a rëy fa qultu annahum fa zanantu annahum ummati ma ne ah xam naa sama xeet baa ngi nii di ñëw fa qiila lii haaza Muusa wa qawmu ñu ne ma Muusa mooy ñëw ak xeetam walakin unzur ila al ufuq waaye ñu ne ma geestul gox bi ma geestu fa nazartu fa ida sawaadun azim ma xool gis mbooloo mu ñuul mu rëy a rëy rëy rëy fa qiila lii unzur ila al ufuq al axar ñu ne ma geestul sa beneen côté ma geestu gis mbooloo mu continué nekk mbooloo mu rëy fa qiila lii haadihi ummatak ama ummatak ñu ne ma lii mooy ummatuk sa xeet wa maahum sabuuna alfan yadxuluuna aljannata bi gayri xisaabin wala azab ca am na ci seen biir juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne daañ dugg aljanna kenn du leen régler kenn du leen mbugal summa nahada fa daxala man manzila gannaaw bi mu daal jóg dugg ci biir këram boo ko xadis bi da ngay gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan toog ak saxaaba yi léeg-léeg di leen jàngal alquran léeg-léeg di leen wax la ko sunu borom yàlla xamal ca alquran bokk na ci xadis bi ñuy jàng nee na yowmal qiyaama day ñëw taxaw xeet yi di ñëw mi ngi noonu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne xeet yi dañ koo jiitu woon ñi ngi jàng histoire Nuux histoire Muusa Huud ila axiri su ko defee nee na yonent yi di ñëw yonent bi alayhi salaam waxtu luy yéeme. yi war a dëgëral képp ku ànd ak dëgg xam ne dëgg du mbooloo nee na gis yonent bu ñëw ruuxeet lay àndal as mbooloo lay àndal ca mooy à peu près diggante trois lañu lu ñu bari bari matuñu neuf nee na nga gis yonent bu ñëw teer si ànd ak ñaari gaay yàlla de woote naa ñaar ñi ñoo ma gëm am na yonent buy teew si ànd ak kenn nit yàlla day diw mi dong moo ma gëm gis nga am na yeneen yi teer si du ñu ànd ak kenn yàlla woote naa kenn gëwuma ndax am na ay xeet yoo xam ne faññee yàlla ma yónni ci yéen la leen seen xeet rey ñu noonu bari na am na riwaay yu wax naan bani israil li ñu rey jege ne ay ñetti téeméeri yonent su ko defee kon du ñu ànd ak kenn yàlla maa ngi nii kenn gëwuma nee na yonent bi alayhi salaam nee na ma toog muy gis moom ma gis mbooloo mu rëy di ñëw ca kanam ñu ne ma Muusa ngee di ñëw ànd ak xeetam nga xam ngeen Muusa mooy yonent bi gën a màgg ci bani Israël téere bi ko yàlla joxoon mooy téere bi gën a màgg gannaaw alquran mi tawraat Muusa ngeen ne di ñëw ak xeetam fekk yonent bi nee na man bi ma leen gisee dama ne ah sama xeete ngee di ñëw waaye gannaaw ba bi ñu ne ma Muusa xeetam la ñu ne ma geestul ma geestu daal di gis mbooloo moo xam ne rëy na lool loolee kontaan loo ma ñu ne maa geesul beneen gox ma geesu gis mbooloo mu rëy lool kon ñaari gox yépp xeetu yonent bi alayhi salaam ñoo ko fees te it moom la yàlla mujj yónni ak yonentam mooy valable ba ila axiri zaman kon xeetam par rapport ak yeneen xeet yi du lu ñu comparé léegi yonent bi alayhi salaam nag teg ci ne yàlla may na ma ci seen biir juróom ñaar fukki junni ñoo xam ne dañuy dugg aljanna ci kenn du xool seeni dossier kenn du leen xisaab dañuy ñëw rek bu yàlla attee jaam yi ba pare ñu jiital leen tabbi aljanna ñoom kenn du xool seen dossier bi mu waxee loolu rek jóg dugg ci biir këram mi ngi noonu
فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه
gis nañu yonent bi alayhi salaam ni mu demee fa xaada annaasu fi ulaik noonu la nit ñi nekk nag di xuus di werante ci ñooñu allazina yadxuluuna aljannata bi gayri xisaabin wala azab ñi nar a dugg àjjana ci kenn du leen régler kenn du leen mbugal fa qaala baaduhum fa laallahum lazina saxibu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am ci ñu ne ah xam naa ñooñu mooy sahaaba yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا ñu ne ah ñooñu xam naa dañuy bokk ci ñi nga xam ne ci biir lislaam lañ juddoo musuñu bokkaaleeg yàlla dara wa zakaru ashya ñu tudd yeneen mbir fa xaraja alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal noonu la yonent bi génnaate ci ñoom mu ne maa lazi taxuluuna fiihi waaw li ngeen di xuus di ci werante lu mu doon fa axbaruuhu fa qaal ñu daal di koy nettali li ñuy wax yonent bi ne leen hum lazina la yarquun mu ne mooy ñi nga xam ne du ñu mocc wala yastarquun du ñu dem ci kenn di ko sàkk pour mu moccal leen wala yatatayaruun te ñoom du ñu gaafal mbir dara wa ala rabbihim yatawakkaluun te ci seen borom rek la ñuy wékku fa qaama ukaashatu bnu muhsin fa qaal udu allah an yajalani minhum ci noonu rek la benn saxaaba bu ñu wax ukaasha ne bërit jóg na ko ah yow mi yàlla yónni ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñooñu fa qaal anta minhum yonent bi ne ko yow ca ñoom nga bokk thumma qaama rajulun axar mu jóg beneen góor fa qaal udu allah an yaja an yajalani minhum ay yow mi yàlla yónni ñaanal yàlla ma bokk ca ñooñu waay fa qaala sabaqaka biha ukaasha mu ne ko jiitu na la ci loolu ukaasha mi ngi noonu mbokk yonent bi alayhi salaam ñëwaat na gis saxaaba yi ñi ngi werante am ñenn ci ñoom ne ñii yonent bi di wax de xam naa mooy saxaaba ñun ñi nga xam ne ñoo ko gis gëm ko topp ko am ñu ne déedéet xam naa mooy ñi nga xam ne dañoo judd ci lislaam te mosuñu bokkaale yàlla dara te xam ngeen ne sahabatul kiram quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom ca mag ña doon nañ jaamu ay xërëm avant l'islam di ñëw ci ñoom suñu borom moo ko wax wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin waladi baasa fil ummiyiina rasulan minhum mi ngi noonu ñu ne ah mën nam kon ñu judd ci lislaam la te musuñu bokkaale ak yàlla dara te it loolu mbokk ak xéewal la yal na yàlla boolañu ci way juddu fekk ne mosoo jaamu xërëm mosoo def ay shirk mi ngi noonu léegi ñu wax ay yeneen wax yonent bi alayhi salaam génnaat ne waaw lu xew lan laa dégg ngeen di wax nii ñu ne ah ñun daal li ñu jaaxal mooy juróom-ñaar fukki junni yooyu nga wax ne dañuy tabbi aljanna ci kañ du leen xisaab yonent bi alayhi salaam ne leen mooy ñi nga xam ne du ñu mocc laa yarquun du ñu mocc doonte ne ne du ñu mocc boobu lenn ci boroom xam-xam yi nee nañu wéerul ndax waa ji def ne imam Nawawi rahimahullah def ne muttafaqun alayhi xadis bi Buxaari génne na ko Muslim génne na ko mais boo demee ci riwaaya ba Buxaari génni laa yarquuna bi nekku ca du ñu mocc nekku ca Muslim moo ko génne ca loolu dañ ne wérul mooy chaz la mooy lu safaanoo ak yë la ko gën a wér lu tax loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan mocc nga noonu yonent bi alayhi salaam da daan mocc te yonent bi alayhi salaam dani mocc bi dara néewu ci bu dee ne shirk nekku ci te it daana wax ne képp koo xam ne mën na jëriñ sa mbokk jullit ci mocc nga la waay jëriñ ko su ko defee kon lañ dëppoo mooy ñaareel bi mooy laa yastarquun mooy du ñu dem ci nit ñu leen di moccal loolu moom ñoom ñëpp génne nañ ko Buxaari ak Muslim loolu yi dañuy gis ne bokk nag sa ngëm bu dëgëree nga wóolu sa borom subhanahu wa taala danga war lu la yàlla teg ci ay natt yooyu nga muñ ko bañ a dem di dimbali ko ci keneen mu lay tiim di la mocc booy ñaan nga ñaanal sa bopp sooy mocc nga moccal sa bopp mais doo dem ci keneen di ko sàkku kooku moom ñaanal la ci yàlla pour di la moccal loole moom dëkk boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne wér na allahuma lu dul am na feneen nit fuñ juuyoo mooy am na ci ñu jàpp ne mocc googu mooy ñiy mocclu pour dara bañ leen a dal arab yi dañ daan ñaan lu ci affaire yi bët ñaan lu ci affaire yi ay dangar ay yu deme noonu waaye ñi ne koo xam ne natt da koo dal ba mu loru dem ñu moccal ko loolu dara néew ci loolu ñu gis ne ay juuyoo yu sew la ci seen diggante ala kulli xaal lay asla bi mooy jullit lor dal na ko mu muñ ko muñ ko rafet même bu cay dee mu dee ca da ngay gis ne moo gën mu dem ñu koy moccal donte ne mocc ga nekk na loo xam ne lu dagan la beneen mbir bi mooy wala yatatayaroon mooy du ñu gaafal ca gaaf googu daanaka xeet yépp a ko xam mi ngi noonu mi ngi noonu oiseau de mauvaise augure tubaab bi dañ koy wax mooy gaaf cosaan bi mi ngi jóge ci picc arab yi dañ daan def da ngay jóg di tukki picc bi la jëkk a traversé su dee dafa jaar càmmoñ da ngay dëpp gis ngeen su dee picc bi daa ñëw ba jub la dëpp da ngay dëpp bu jaaree ndeyjoor wala mu traversé la jëm sa kanam su boobaa nga continuer sam tukki loolee mbokk da ngay gis loolu ba tey da ngay gis gaa yu koy seete jaay kuti picc yi nekk Dakar ñu bari ñi koy jënd mooy dañ koy seete jël picc mi wax li ngay wax bàyyi ko bu jaaree ndeyjoor nga ne baax na bu jaaree càmmoñ nga ne baaxul loolu ay gaaf la loolu mbokk dafa xaraam jullit warul def loolu am na ñoo xam ne seen gaaf mi ngi aju ci góor wala jigéen bu ñuy génn tey dajeeg góor dañuy dëpp am koo xam ne bu dajeeg jigéen day dëpp am na ñoo xam ne seen gaaf ci bis yi la tey jii boo bëggoon a tukki circulation nga bëgg mu yomb rek tukkil àllarba lu bari ci Sénégal yi tukki duñ ko tukki àllarba ñu ne àllarba dafa gaaf soo demoon ci këru ceddo yi duñ ci fóot am na ñoo xam sax duñ ci sangu gis ngeen am na ñoo xam ne nii dañuy gaafal weer yi bu doon jamono arab yi weer bi ñu nekk lañ koy gaafal weeru safar yeneen ci bàyyi salaam tudd ko safarul xayr weeru yiw yi ndax lañ ko doon gaafal am na ñoo xam ne dañuy gaafal ne shawwal kenn du ci jël takk soxna kenn du ci jël soxna boo ko defee rek musiba lay doon yonent bi alayhi salaam moom danaan taamu shawwal ngir loolay nga xam ne arab yi dañ koo bañoon shawwal gis ngeen comme Sénégal masalan baraxlu ni ko ñu bari bañee ne duñ ci takk soxna sëy buñ ci takk day gaaw a tas mbokk loolu suñuy wax rek la almuhim mooy jullit du gaafal temps jullit du gaafal ay mbir looloo tax mu ne wa ala rabbihim yatawakkaloon ci yàlla rek la ñuy wékku mi ngi noonu xam ne ndogal ci yàlla rek lay jóge su ko defee waa ji nga xam ne préparé woon na tukkiam wala préparé takk soxnaam ay yu ñàkk solo ay gaaf ak yooyu tax bee mu dellu ca gannaaw perte na àdduna avant àllaaxira loolu tax yonent bi alayhi salaam dañu daan jàngal ne ñenn ñi ñu ngi ko doon ne seeni maam mu ancré seen bopp waaye bañ ko laajee ah am na ci ñoo xam ne ni day unaasum yatatayaroon am na ci saxaaba yi ñoo xam ne loolu dañ koy yëg yonent bi alayhi salaam dane falaa yasuddannakum même boo ko yëgee sa xol bu mu la tey def la ngay def mi ngi noonu bu mu la tey def la ngay def seytaan mën na ñëw na la yow daal boo xëyee seeti nit gisoo ko say boo dëpp tey koo seeti lu baax falaa yasuddannakum continuer ci loolu seytaan mën nañu ah fàttaliku accident tel àllarba la woon nangam nangam nangam la woon mbokk loolu bu mu la ciy tukki àllarba falaa yasuddannakum abadan li ngay war a def yow julit wékkul ci yàlla nga def ko wala rabbihim yatawakkaloon loolee kon ni ñetti mbir yu am solo mooy du ñu dem di mocclu dëppoo nañu ne mocc bu xaraam moom julit wuru ko def abadan képp koo xam ne shirk lay mocce loolee moom yeneen ti bi wax ne beneen xadis laa ba'sa bi ruqa maa lam takun shirka dara nekkul ci mocc fii ak du du shirk amma li ci tegu mooy gaaf ñetteel bi mooy sa mbir yépp nga wékku ko ci yàlla comme ni ñu ko ubbee ci buntu ayaat yi ak ak ahadis yi lii bi nga xamee ne nii sahaaba yi dégg nañ ko benn ku farlu woon de Ukaasha ibn Muhsin daal di jóg taxaw daal di ne ay yëmu yàlla yónni ñaanal ma ma bokk ci juróom-ñaar fukk yooyu yeneen tibaay sax na ko yow ci ñoom nga bokk beneen waay na bërit ay yëmu yàlla yónni ñaanal ma ma ñen ma bokk ci yeneen bi na ko déet occasion jiitu na la ci boroom xam-xam yi wax nañ lu bari lu tax yeneen bi gàntal ko bokk na la la ci gën a logique mooy yeneen bi dafa bañoon ubbi bunt xam ngeen bu ko yeneen bi ñaanaloon mbooloom yëpp lañ ko ñaanaloo bu ñu fa demee ne ci lu ko ñeneen ku dajeeg yeneen bi na ko ñaanal ma loolee kon yeneen bi bàyyi nit ñi ci loolu te itamit am na ci ñenn ci nit ñi bu ñu leen garanti leen ne àjjana lañ jëm dañuy daal di yaa yox yoxi ci seen jaamu yàlla loolu tax yeneen ci bàyyi leen ci ñu continuer ci loolu donte ne ñi nga am rafet njort ci sahabatul kiram ci ne àjjana lañ jëm bokk juróom-ñaar fukki junni xam ngeen bëriwul par rapport ak xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam allahuma lu dul am na beneen xadis bu cay dolli yonent bi alayhi salaam ne wa maa kulli wahidin minhum sabuuna alfa ku nekk ci ñoom yàlla dana ko booleeg juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne dañu leen jiite tàbbaleen aljanna looloo tax dañu ni ñiy tàbbi aljanna ci xeetu yonent bi bila xisaabin wala azab ñi ngi nekk soixante dix mille fois soixante dix mille boo ko xoolee day nekk quatre milliards neuf cent millions quatre milliards neuf cent millions daañ dugg aljanna bila xisaab wala azab yal na yàlla boole ñu ci ñooñu donte ne it mbokk jullit ngeen xool à peu près ak jullit ñi islam ba mu amee léegi mën na quatorze siècle jamono bi ñuy dund rek ñu ngi estimé jullit ñi un milliard cinq cent jamono bi ñuy dund ñu ngi estimé jullit ñi un milliard cinq cent loolu dalay leer ne fii cent ans ñoom ñëpp daan dugg biir suuf ñeneen ñu leen ëpp ñëw bu yàlla tukkalul àdduna ñu leen ñu leen ëpp ñëw parce que avancement ñi l'islam di avancé jéggi ne dayoo mën nañ am ne siècle bi di ñëw mën nam ñu nekk sax deux millions ou trois millions kon boo xoolee par rapport ak fii ba yonent bi alayhi salatu wasalaam feeñee ak ba ba àdduna di tukki jullit ñi ñaata lañu nar a doon loolu yàlla moo ko xam su ko defee 4 milliards 500 bari na bariwul waaye lu ñu mën a yaakaar la yàlla na yàlla boole ñu ca ñooñu mi ngi noonu incha allah.
الرهيب تصغير رهن وهم دون عشرة أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضمها وتشديد الكاف أو تخفيفها والتشديد أفصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري
bokk na ci ay baat yu mu doon firi donte ni jot nañ ko firi ci wolof ba pare ci ay ruuxay te ak yu demee noonu ala kulli xaal xadis juróom-ñaar fukk ak juróom bi mooy ñaareelu xadis ci buntu al yaqin wa tawakkul xadis boobu it ki ñu koy jàngal mooy ibnu abbas radiallahu anhu anhuma aydan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يننت بلي دانا وخ اللهم لك أسلمت يلا يولا جبلل وبك آمنت يولا جم وعليك توكلت يولا سكنك وإليك أنبت يولا جنج جم يو وبك خاصمت يو رجيا ما تخدي داغ سنتي اللهم أعوذ بعزتك يلا مانجي لقو تي ستدانجي بي laa ilaha illa ant amul kenn ku yeyoo jaamu ko ku dul yow antu dilla nii ci nga may réeral antal xayu lazi la yamut yaay ki dund ca doo dee mukk wal jinn wal ins yamutuun nit ñeeg jinn yépp dañuy dee mi ngi noonu mbokk ñàkk xam sunna mooy waral bokkaale yu bari waaye tey sooy sukkandiku ci nit di ñaan nit di xeccilikoo ci nit nit ñooñu di wax soo leen laajoon kan moo gën ci nit ñi su dee ay jurit lañu mënuñu ñàkk a wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki gën xoolal yonent bi alayhi salaam nag ay ñaanam lan la ci daan wax ci loo xam ne Bukhari muslim solo nañ ko donte ne Bukhari gën na ko gàttal ne ko muslim yaatale daf daan wax ne yàlla man ci yow laa wékku yow laa jébbalul ca mooy sama mbir yëpp bàyyee naa ko ak yow loolu mooy islaam mbokk julit mooy jël say mbir bàyyee yàlla waaye diggal yàlla lum diggale nga def lum tere nga bàyyi engagement total aslamtu yow laa jébbalul yàlla ca it man yow dong laa gëm yàlla yow laa gëm say wax laa gëm sa ndimbal laa gëm say mbir laa gëm yàlla man sama wékku yépp ci yow la sama ndimbal yépp ci yow dong laa ko yaakaar mi ngi noonu sama ndimbal yépp ci yow dong laa ko yaakaar yàlla it ci yow lay dellu jëm heure bu ma defee bàkkaar heure bu ma yëgee ak càggante heure bu ma amee ak jaaxle ci yow dong laa jeng jëm mi ngi noonu munibina ilayhi yàlla it sama dagg sante ci yow dong lay dagg santeel mooy yow dong yaa tax may xeex yaa tax may xuloog naafiq yi lépp effort bu may def ngir yow rek yaa tax ma koy def mooy défendre sa diine ji yàlla maa ngi làqoo bi izzatik sa mooy sa teddaange bi sa kattan gi wala izza mooy teddaange bu ànd ak kattan goo xam ne dara tewu ko ci lan ci yàlla nga may réeral negam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon muslu ngir yàlla réeral ko keneen ku dul ñeen waxi noppi te loolu it mbokk julit moom la ab julit war a di bàyyi xel fu mu mën a toll mooy yàlla réeral ko moo am mujj gu ñaaw yàlla na yàlla musul ñu ci dañuy Sufyaanu Sawri bari woon na benn guddi muy jooy lu baree bari gars yi di ko wax ne ko waaw ah yow imaam yi yow sa boo defee ay bakkaar it yërmaane yàlla yaatu na kaza wa kaza mu ne leen da ngeen xamul li ma gën a tiit sama mbir mooy bakkaar li ma gën a li gën a li li ma gën a li tuuti ci man bakkaar lu tuuti la ci man waaye li ma ragal sama bopp mooy mujj gu ñaaw mi nga noonu li ma ragal sama bopp mooy mujj gu ñaaw te mbokk sunu borom moom moom sunu xol moo koy wëlbati nu mu ko neexee su ko defee mujj gu ñaaw mooy lan ndax mooy dee oto dër la nga def morso la wallahi mooy dem ba dara da sulu dul dee nga génn ci ngëm yàlla dem ci kéefér yàlla na yàlla musal ñu ci ndax yeneen tawàll sax doon ñaan yàlla a'uuzu bi izzatika an tudillani maa ngi làqu ci sa kattan sa tëddaange ngiree nga muy réeral daal di koy jeexale it ne ay yàlla yaay kiy dund ca doo dee ba faaw te sunu borom mu ne waxoon na sànq tawakkal alal hayyi lazi laa yamuut laa yamuut yaay ki dund ca doo dee wal jins wal jinn wal ins yamuutoon amma jinn yi ni ñëpp dañuy dee loolu it muy wane na mbokk julit képp ko yaakaar day ma sa dee tey am na kilifa gu mag gu fi jógee ñu bari jàppoon nañu am na ay kanoog ay prise ak ay nangam waaw bu doon sa yaakaar yëpp ci moom nga ko def anuma tey ñu ne dee na dee na kon la lan moo gën a dugg xel mooy sukkandiku ci ki nga xam ne du dee ba faw waaye malheureusement seytaan gis nañ ne fi mu jaar ak doomu aadama dañ naan la nitu yàlla ni mu mën a gannaawam moo raw ni mu mën a kanamam da ngay gis tey ku mën a daw ay centaine de kilomètres dem ci benn dëkk fekk fa ñuy dund de mu romb leen ñoom ñëpp dem ci benn xabru di diis kooku soxlaam au lieu mu wax ko ñuy dund laa xabru ba lay dem di diis kooku soxlaam bal léeg-léeg kilifa yi nekk foofu ñoo naan ko soo amee soxla jaarul ci xabru bi nga ñaan ko waaye loolu am na Sénégal am déet nga noonu kilifa yi nga xam ne ñoo waroon a tere loolu ñooy wax nit ñi su ngeen amee soxla dem leen ci xabru bi ngeen ñaan ko xabru bi loo fa ñaan rek jeex na ala kulli xaal mbokk jullit yeneen ci moom alayhi salaam nii la meloon mi ngi noonu.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل
xadis bi ñetteel bi ci baabul yaqin ibn abbas moo koy nettali qaal xasbuna allahu wa nicma alwakil qaalaha ibrahim xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muhammad xiina qaalu lahu alladina qaalu lahum annaas ila axiri al aaya ala kulli xaal mbokk li muy wax fii rek niñ ko waxee woon sànq mooy ibrahim alayhi salaam ba nga xamee ne nii mi ngi nekkoon ci kanamu benn danger boo xam ne danger mënu ko paase sawara boo xam ne taal nañ ko ba mu jéggi dayoo ba lenn ci riwaay yi dañ ne yéefar yi bañ ko fa bëggee sànni ñemewuñoo jege sawara ba am na lu ñu wax mun janiq muy ay bant lañ jël def ko ci benn pañe te lañu sànni Ibrahim waaye Ibrahim dana rek xasbunallahu wa ni'mal wakil comme yonent beeki saxaabaam loolu la ñu waxoon di aaya boo xam ne jàng nañ ko ci bunt ba loolu Buxaari ko solo ko Ibnu Abbaas it loolu la wax ne Ibrahim bokk na lu mujj wax bi ñu koy sànni ci sawara ba mooy xasbiya allahu wa ni'mal wakil xasbiya mooy doy na ma xasbuna mooy doy nañu mi ngi noonu ñaar yépp loo ci wax baax na ca loolu muy wane rek ne ba mu wékkoo ci yàlla lan la sunu borom def mooy amul benn danger boo jullit mën a jànkoonteel ci kaw suuf bu mel ne danger Ibrahima boobu amul du ay balu fetal du kaso du lenn loo xam ne nii rek mën nañ la ko menacer lu raw lañ menacer Ibrahim waaye gis na bi mu waxee loolu sunu borom yàlla da koo dimbali daa jëne sawara bi qul na yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim suñu borom wax ak sawara bi ne ko na nga nekk sedd waaye sedd bu ànd ak jàmm ci kaw ibrahim alayhi salaam looloo tax dem nañ ba taal ba fay na ibrahim lan la sawara bi lakk ci moom mooy bu miñ ko takke woon waaye gannaaw ba amul lenn loo xam ne lor bu mu ko def la loolu it muy wane ne sunu borom ku mu bëgg a xettali loolu it dalay dalay xettali ndax yow jullit da ngaa war a jàpp na kon ne ah man lii su ma ko waxee rek yàlla daf may xettali ni mu xettali Ibrahim déedéet boo ko defee mooy def nga sa waru gar li ci des nag mbiru yàlla la am déet su neexee yàlla mu xettali la su neexee yàlla mu seetaan la nga dee dëkkee ji aljanna moo tax yàlla def na ko asabul buruj ñañ dajale woon ci xuntima ci ngaareew ya taal ko sunu borom mu ne annaaru zaatil waqud is hum alayha shuhud wa hum ala ah is hum alayha qu'ud wa hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud dajale nañ waa dëkk bi ah yéen da ngeen weddi di suñ diine ji gurguru leen ñoom ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen taal leen ba max leen ci taal bi sunu borom seetaan leen ñu lakk dee dem aljanna mu ngi noonu borom bi loolu la wax amma Ibrahima yàlla sauvé ko su ko defee yow jullit ñu la mën a menacé ak luñ la mën a menacé li ngay wax rek mooy xasbunallahu wa ni'mal wakil bàyyi sa bopp ak sa borom lu yàlla dogal rek nga xam ne yiw lay doon ñeel la mi ngi noonu.
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقه
حديث بيغا خامني ci lañuy mujjé abi hurayra moo ñu koy nettali mu ne anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qaal yadxulu aljannata aqwaamun afidatuhum mislu afidatu tayr yonente bi alayhi salaam mu ne dana dugg aljanna ay nit ñoo xam ne seen xol ya dafa mel na xolu picc am ñu ne maanaahu mutawakkiluun ay ñoom dañuy wékku ci yàlla wa qiila qulubuhum raqiqa ñi ne déedéet seen xol yee moo woyof ñaar yëpp benn la ala kulli xaal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne am na nit ñoo xam ne dañuy dugg aljanna seen xol comme xolu picc la gars yi jàpp ngeen ne picc dana wékku ci keneen ku dul yàlla laa wallahi abadan yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu daan wax naan law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr yaxdu ximaasan wa yaruhu bitaana mu ne bu doonte ne da ngeen wékku ci yàlla dëgg-dëgg wékku yàlla dana leen gàddul wërsëg ni mu ko gàdduli picc yi picc day xëy ci kaafam naaw dara du nekk ci biiram mu dem wër-wër waaye balaa dellu si ngoon biiram fees na loolu moo tax sunu borom ne ci yàlla rek la ñu wékku moom ngay fekk suratul mulk awalam yaraw ila tayri fawqahum saafatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna ila rahman picc yaa ngi nii ndaaw dem kenn téewu leen ku dul yàlla ba mu pare mu ne aman haza allazi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman ndax nag léegi ñi ngeen yaakaar ne yoral nañ leen ndimbal ñu leen di dimbali gannaaw yàlla loolu it moo tax ba mbokk julit bu la picc ëpp fulla yàlla lay wékku bokkalewu ko dara yow it sa mbiri àdduna ak sa mbiri àllaaxira bu ci yaakaar ku dul yàlla subhanahu wa taala bu ci yaakaar Abu Bakar bu ci yaakaar Omar Ousmane Ali yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy baax baax baax baax bu ko ci yaakaar ndax moom yàlla la yaakaaroon ci yàlla la wékku woon su ko defee kon la nga xamee ne ni moom nga siq ak yonent boobu siq ko ko baax ku mën a doon mooy roy seen yoon roy leen ak jaamu yàlla amma yaakaar gi amma wékku gi sukkandiku gi lépp moom ci yàlla subhanahu wa taala dong lay doon donte ne ñaka firé it ne qulubuhum raqiqa mooy seen xol yi dafa woyof ca mooy doo ca fekk ak rëy doo ca fekk ak tar mooy xalise yoo xam ne nii dañuy soxor ak iñaan ak kaza wa kaza laa ay nit lañ ñoo xam ne dañuy bëri yërmande gaaw a nekk ñoo xame ne nii ñuy am cofeel kaza wa kaza waaye loolu lépp da ngay gis ne ngëm yàlla gu wér moom mooy jur loolu yal na yàlla subhanahu wa taala may ñu ilmal yaqin boole ñu ñuy wékku ci moom yal nañu yàlla doy àdduna ak alaxira xecc li ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad